Seexuna Bamba moo fi utu si yonent te misaal lu wér la fil Qur'aan kuréy bay damoo ni gumda yamba baayam bu baax nu sew tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baa Seexuna Bamba moo fi uutu si yonneen te misaal mi lu wér la wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am bekté di len nuyo fi tay ci Istanbul buñ ko waxé nak xel yëpp dem ci réewum Turquie

ci mbokki sénégalais yi ci sen nekkine ci réew mi sen relation ak ñi nga xamanteni ñoom lañ fekk ci di euh, sen relation avec les autorités en pays d'accueil waye sen euh, digënté ak ñi nga xamanteni euh, ñoy ñu yor sañ-sañu dagal bi ci suñu réew mi ñu jógee di réewu Sénégal waye it ñoom seen jëflante seen biir yooyu yëpp di ay question yo xamanteni ni nañ ko yaatal suñu digënté ak suñu mbokk sénégalais yi xam ngeen ni ci fédération bi kiko jité di Pape Matar Sow di président bi waye it fassiyene cheikh waxtan wi ak Pape Moussa Guèye mi nga xamanteni moy secrétaire général bi fassiyene yéene weq siq waxtaan wi ak Cheikh Guèye mi nga xamanteni kon mom moy yor lepp lu jëm ci walu social ndax xam nga suñu mbokk sénégalais yi fépp fu ñu nekk rek dinañ soxla walu dimbalenté ndax nak euh, solidarité mom buñ ko waxee xel yëpp dem ci euh, Sénégal. kon euh, fas yéene waxtaan ak ñoom Pape Matar Pape euh, Pape Matar Sow xam naa si wala ñuy tàmbale yow mi jiite fédération bi di la jaajëfal bu baax a baax si disponibilité bi. ak euh, li ngeen ñu permettre euh, ngeen ñu mën a toog waxtaan ak yéen ci nekkinu Sénégalais yi na si réew mi di Turquie gannaaw bi ñu la nuyoo euh, ñëpp xam nañ ni c'est une nouvelle destination Sénégalais ñu ngi fi bëgg a doon léegi ab lim macha allah lan lan moo waral choix wu Turquie léegi Sénégalais yi jël ko à ton avis ñu ko nettoyé. salaamaaleykum àdduna yëpp. Mhm. salaamaaleykum suñuy auditeurs yi télépes téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre Lamp Fall TV eh, ñu koy àddoo tey fii ci Istanbul Turquie di nuyu bépp sénégalais bu fi nekk di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ànd ak ñun ci lii di ko seetaan rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ àndal di liggéey te muy fédération des sénégalais Istanbul bi di nuyu suñu ambassadeur bi fi nekk nga xam ne mooy général Cheikh Gueye di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy suivre ci émission bi nii nga xam ne Lamp Fall TV lay dawee. Euh, di sant bu baax nag gan yi nga xam ne am nañ ko jugee ba Sénégal ñëwoon fi mission indiw leen fi ñu boole ci dox doxinu sénégalais de l'extérieur yi nga xam ne fu ñu dem comme ni nga ko waxee di ngeen xool ci lan la ñuy nekk ci lan la ñuy yëngu lan la ñuy dund loolu tamit dañ koy rafetlu mu nekk lu am solo ñu lay dalal jàmm ci sa dëkk ndax euh, li ñuy wax turc nouvelle destination la <laughs> nouvelle destination boobu nag li ko indi jàpp nañ ne dafa am ñaar ndax bi ci njëkk yoon la woon pour dem Grèce un deuxièmement mu nekkaat yoon dëkk boo xam ne dëkk commerce la mhm. te àdduna bi ku ne xam na ne commerce dafa bokk ci euh, matière yi nga xam ne dañoo bokk ci matière yi gën a am doole ci àdduna bi fii ñu toll parce que Chine amoon na fi mais gannaaw Chine ñuy wax Dubaï Dubaï après turc la ñuy wax kon destination boobu nag moo waral nit ñi aussi tamit daw utal si turc

ku ne xam na ne lu sori la. sori waaw te wax dëgg yàlla sant bu baax ndax ñi fi nekk ay jàmbaar lañu si. Mhm. donte lu muy métti métti gaa yaa ngi koy lijjanti. Mhm. waaw métti dëkk bu métti la nag ndax lii ma la wax moo ci ne. Mhm. dëkk boo xam ne réew mi amagul programme immigration ku ne xam na ne bu métti lay doon ndax li nouvelle destination moom mosul yomb. te léeg-léeg nga jokkoo ku nekkoon Italie wala ku nekk ci yeneen réew dañu lay wax ne fii ngeen tollu fa lañ tolloon. ci métti dem na nag ba xëy na. au fil à mesure lu ñuy gën di dem yàlla mën na di def affaire yi di gën a yomb daal fa lañ tollagum fi mu toll nii. yi mun nga ñu si indil quelque exemple par exemple pour mu gën a précis. waaw méthodes yi bëri na parce que Turquie dafa nekk dëkk boo xam ne li ñuy wax li ci njëkk maanaam moodu moodu li ko gën a ñor ci dëkk bu mu mës a nekk séjour ci la bokk. Hum. parce que mooy waral mu mën di dem di ñëw. Turquie am fi séjour dafa xaw a jafe trop ndax li ko waral mooy ñoom defuñ ay séjour prolongation visa la prolongation visa il faut que nous aussi comprendre à parce que da ngay ñëw visa business Vous da business Ce que nous fi fait, visa 15 jours la 15 jours avant muy jeex te li ngay business pareegul am droit séjour pour ñu la prolongation. Mmh. en attendant absolument comme en Allemagne. wala nga ñëw fii pour touriste nga jàpp ne touriste bi ngay def bon pare woo nga ne xaaral ma dugalaat sama séjour visa bi pour ñaan séjour ñu defaraatal ma prolongation boobu mun na dem ba un an comme mun na dem ba deux ans léeg nga ñëw fi ak visa boo xam ne visa foire la parce que am na ñoo xam ne foire moo leen fii indi wala séminaire wala leneen comme conférence yooyu yëpp dañ am na visa am soo fi ñëwee te loolu pareegul am nga droit dugal visa bobu noonu ñu defal la prolongation visa. prolongation bi nak moy indi séjour bi. séjour bobu nak ñun yag nañ koy wax toujours turki ñom dañuy wax ne ko ko xam touriste mo la fi tax ñew suñ la joxé ñaari yoon 1 an ñettel bi mën nañ ko yàq parce que li tax dañuy japp ne kuy ñew di touriste ci dëkk def fa 1 an touriste moy ku dul liggéey. ñoo pour visiter. nga ñëw pour visiter def ah. touriste. toogaat fi yeneen un an mais danaan kii kon li muy dundee fan la koy jëlee. Ah. léegi nekkatul touriste kon dafa dëkk. Ah. loolu yëpp nag seen programme la ñoom pour xatal nit ñi ci seen dëkk bi ba duñ fi toog. parce que aussi tamit nit war nga ko mën a yaatal ci dëkk bu xasee ba def loolu nga comprendre ko mais ñoom it am nañ lu ñu làq ci loolu loo xam ne tey bu subaa buñ bëggee yow xatal na ci dëkk bi rek mën nañ la fee xatal. bokk na ci jafe yi nga xam ne. nit ñi dañ koy dund. tey boo demee ci santé aussi tamit la même chose parce que dañ la koy wax toujours boo demee ci hôpital yi Sénégal ak Turquie seen relation li muy baax baax baax amaguñ coopération santé. te am na ay commission mixte yu am ci ñaari dëkk yi. absolument yoo xam ne tey boo demee Sénégal chantier yu bëri ya fa gën a mag. Turquie yi ñoo ko yor tey centre Abdou Diouf Turquie yee ko defar aéroport bi ñoo ko àggali. soo demee arena bi ñoo ko defar te. fii may wax yow nii bi fi président Macky Sall ñëwee bëriki démb rek suma jox nañ ko benn euh, centre boo xam ne mi ngi koy def Sénégal boo xam ne daanaka Afrique de l'Ouest moo ci gën a mag ci centre boobu bës bu paree. ONU am nañ centre boo xam ne dañ ne ONU ñi nga xam ne ñoo bokk ci ONU ñëpp centre bi fan lañ koy def dañ ne dakaar lañ koy def. Mm-hmm. sànc marché bi ki ko gañee turc la Turquie ak Sénégal am nañ ay relation yu war a mën a tax sénégalais yi fi nekk war ñoo mën a am jafe-jafe sax ci santé boobu. Mhm. parce que ñun lu ñuy wax toujours dañuy indi solution. Mhm. xëy na bon di ngay dund ci mu métti la. da nga bëgg ci génn mooy waral toujours booy wax ak sa état tamit da nga leen di wax loo xam ne solution mën na ci am. Mhm. parce que su fekkee ne ñoom dañ na ñaari dëkk yi mënuñu am relation santé amagul ba léegi moo tax li ñuy fay cher ñun ñu waxtaan ceeg ñoom bés na leen dañu bëgg commission mixte yi su amatee. boole leen ñu ci. Mhm. mais malheureusement Sénégalais yi yéen Sénégalais yi résidé fii quoi résident parce que mhm. aussi tamit nit moom li may wax toujours. Mhm. boo ko bëggee ñawal. di ko à peu près te mu teew ñaw ba dana ëpp wala mu xat.

Mhm. voilà en tout cas ce séjour le limité les donne mhm. euh, euh, c'est-à-dire là m'ont poussé les gens à à venir exactement bu fekkee soxlaaguñ main d'œuvre mais xam nga tey comme àdduna bi yëpp ni muy doxee tey boo demee Dubaï yaa ngi fa fekk ay immigré même ñom bo démé Allemagne ji cinq millions turcs mo fa nekk kon immigration nekul man dama japp na nekul sax que nit ki dafa néw doolé mhm. voilà Euh, dafa war a daw dem uti ji. Mhm. wala dafa métti mais dafa am loo xam ne man damaa gëm ne nattu la bu suñ borom di teg ci nit ki. effectivement parce que tey boo xoolee boo ju tey Turquie lan lañ lan ngay war a mën a xalaat ne moom la ñu war a mën a uti Sénégal ba defee immigré ji. Mhm. da lay jaaxal. mais ñoom nan la ñuy mën a jógee fii tey boo demee Allemagne cinq millions turcs moo fa ne. Mhm. kon immigration waratul am frontière. effectivement dañ ko war a ubbi ba képp fu nit bëgg a dem ci àdduna bi wala foo bëgg a nekk rek war nga faa mën a ne de deux Turquie dafa ratifié lépp convention bépp boo xam ne day jox doomu aadama ak xam rawatina immigration ratifié na ko mais d'accord ñoom nag ni ñuy doxee ratifier nañ ko seen diggante ak yeneen réew yi mais ba léegi mënuñu ko appliquer en tout cas duñ ko appliquer seen diggante mënuñ ko appliquer parce que doo comprendre tey Turquie da ñëw fekk nit ku toog mu neex ko mu wax la ne la moral bu sub mooy tey moom nekkuma quoi <laughs> def la lu neex bu ñëwee bu subaa mu ne la nice quoi amul problème li nga lim la bañaloon démb mu nangul la ko ci mhm. parce que administration bi ni muy na ci lim teg ba pare a xam presque 83 millions habitants ñoo Chine tey am na ay immigré ñoom ñi dañuy jugee Chine dem di liggéey. kon warul tax. Mhm. ba léegi ñu bañ main d'œuvre bi ci nit ñi. d'accord euh, ñu xool li nga li nga li nga demare sa à dire ñi fi nekk. Euh, pour ñëw toog pour ñëw jéem a daan seen doole en tout cas euh, ñu si bëri fii genre euh, transition lañ ko jàppee woon. Mhm. maanaam pour jugee Turquie. dem Grèce. Grèce mhm. doy na waar léegi xam nañ ni ak crise bi fa nekk mhm. fexe nañ ba jéem a toog Turquie ndax tamit c'est un pays d'avenir c'est vrai ñoom nan la ñuy mën a def ba mën di survivre. suñu xamee ni euh, biti réew yëpp a yam boo yorul kayit liggéey bi dina xaw a jafe lan mooy seen domaine d' activité exactement. nëbbatu rek parce que même Grèce ga nga xam ne lañ fi daan jaar di dem léegi dañuy jógee Grèce sax ñëw fi. di ñëw sax du jeex. Mhm. léegi système bi ngay liggéey mooy di nëbbatu foo toll. Mhm. tey léeg-léeg sénégalais yi dañ leen di jàpp ci police yi ndax lan défaut de séjour. et pourtant dañuy wax toujours ne relation ñaari dëkk yi loolu waroon na ci mën a ñàkk. war ci mën a ñàkk. Mhm.

ñu mhm. fi ambassade bi ne mhm. presque quatre cent kilomètre nga amoon consul amatoo ko benn sénégalais yi nekk fii waroon nañu am benn juriste au moins mhm. nga xam ne bu ñu amee problème mën nañ dem ci kooku sax wax ceeg moom wax nañ ko ay yoon yoon bërki dem bi fi président ñëwee wax nañ ko ko pour nañ la ñuy def ba gaaw ñu am consul lu mu gën a gaaw gën a baax ci ñun consul général wala consul honoraire mu ne général moom mënaguñ ko am parce que consul général dafa li muy laaj mook ambassade ñoo tolloo li ñuy budget bi ñu war a mën a am. Hmm. kon dinañ leen fexeel ngeen am consul général consul honoraire boo xam ne. Euh, dina leen taxaw te yéenay tax tamit mu nekk fi. Mhm. te lu mu gën a gaaw ñu ngi ci pour ngeen am ko. maa ngi ñëwaat si yow tëj nga bunt pour mën a dugg ci euh, euh, kon ces relations entre le le le pays d'accueil ni nga ko waxee. Mhm. le pays d'accueil di Turquie ñoom ba léegi amaguñ en tout cas benn politique bien définie. Mhm. pour les étrangers yi nekk fii si seen réew. mais également suñu réew aussi y a beaucoup de manquements buñ la déggee bu baax am na yu bëri yu manqué. damay ñëw si Pape Moussa gannaaw bi ma la nuyoo secrétaire général secrétaire la fédération des sénégalais de la Turquie ni nga dégg Pape matarso développer développé ci sénégalais yi seen nekkin mel na ni kon jafe na lool. waaw d' abord dañuy da ma leen rek d' ma saluer wax dëgg yàlla initiative bi nga xam ne wax dëgg yàlla def nga ko ba Sénégal wax dëgg yàlla comme ni ñu koy defee partout dans le monde. ñëw ba sénégalais ba ba Turquie fii sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk vraiment ñu ngi koy rafetlu di la dalal ak jàmm aussi di nuyu son excellence c'est euh, euh, son excellence Cheikh Gueye ñu siar baax ba di ko nuyu di nuyu ñi nga xamne ñom lañ bokkal nek ci plateau bi muy le président Pamatar ak euh, ki nga xamne ne moom moo chargé social muy Cheikh Gueye. sur ambassadeur. turandoo ambassadeur voilà <laughs> donc voilà wax dëgg comme niko niko le disait Pamatar tout à l'heure rek le président. donc jafé jafé nga xamne Sénégal yi nga koy dund. je pense que metti na lool mm-hmm. metti na trop parce que bo xolé comme ni nga ko waxee tout mon nouvelle destination là donc euh, je pense que avec Covid binim ni ñep demee ñi nga xam ni nga woon sax euh, pratiquement daw na ñëw turki mhm. donc mu nek lo xamné c'est pas facile pour ñi nga xam ne ngi fi nek bon ni nga koy dundé wax dëgg yalla metti na loolu mhm. parce que bo xolé toujours dama koy faral di wax toujours buñ togué damay wax dëkk boo fa demee euh, fekk fa ay nit d'abord li ngay njëkk a def mooy fexeel ba am carte consulaire. Mm. ba am pour de permettre ci intégration bi le monde n'est que sénégalais on fa nekk pour ñu montrer xam exact le nombre de sénégalais yi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur. Mm-hmm. wala ñu nekk Turquie ñu ngi dëkk. Mm-hmm. sénégalais la plupart du temps dañuy dañuy dañuy négliger lu mel non mm-hmm. parce que tey bu fekkente ne da nga jóge Sénégal. au Turquie déjà langue turque rek dafa compliqué. waaw ah, c'est ça pour intégration bi dina jafe lool exact intégration dafa xaw compliqué. parce que pour les étudiants mel ni di nga def 6 mois accéléré pour mën a. dégg langue voilà exactement bo xolé ça par rapport kon da ñeu pour business. pour mu dégg langue voilà c'est ça bo xolé par rapport les autres pays lu ci mel ne Europe gi mel ne boo mën nga continuer mhm. ses études. donc par rapport ak boudé da nga ñëw turki euh d'abord pour nga intégrer ci université d'abord il faut nga nga nga def langue bi d'abord une année. Mm-hmm. pour pour def langue bi donc pour mëna a continuer sa première année à l'université mm-hmm. donc mu nek lo xamné ne euh, ça c' est valable pour pour pour tous les sénégalais hein, mm-hmm. pratiquement du étudiant cassé ah. parce que xolé def lenté bi moy tax langue bi mënul ñak voilà la ñang mënul ñàkk rawatina ki xam nga fu jógee Sénégal ñëw fi xam fu kenn déngul langue bi donc dana compliquer ci mom bu fekkenté djégéwul euh, ñi nga xamné ne ñoom peut être ñoo fi nekkal sénégalais soit euh, ambassadeur bi fi nekk wala euh, fédération bi nga xamné ne ñu représenté sénégalais mhm. té dañ koy négliger moy limay may encore une fois rek de toute façon limay limay li invité sénégalais yi nga xamné ñoy ñooy Sénégal di ñëw fii mhm. soit ci ci cadre université nga fi ñëw pour étude wala soit da ngay ñëw pour commerce ak lu mu ci mënti doon mhm. yaakaar naa fexeel ba am carte consulaire

la fédération pour nous joxe carte consulaire pour voilà c'est vrai que avons accréditer la fédération pour ñuy 4 carte mm. Mais il y a une condition lañ koy devons faire parce que si vous nous, les Sénégalais, nous il faut que d'abord, nous, nous, nous, nous, nous fédération fédération nous nous par cargo comme le président des fois day xaw a métti te des fois mën na am retard aussi. envoyé ko envoyé Ankara parce que par cargo la koy envoyé cargo la ngay dem ci poste bi. dajale carte consulaire envoyé ko mu dem Ankara mën na jëlaat presque euh, une semaine wala deux semaines mu ñëwaat. mais sénégalais yi wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo fi nekk te te ñu nekk ay illégal. non ce qui veut dire que donc fédération moom du du du du confection du du defar carte consulaire maanaam daf koy. Euh, daf koy dajale yónnee ko yónnee ko Ankara.

muy soit nga am kayit muy soit nga ma ñàkk bañ am kayit mais li ci ëpp importance sax mooy euh, du du du question carte de séjour bi nga am. Mhm. parce que même bu fekkee da ngaa ñëw ci dëkk comme li sànq président Pape Matar wax. Mhm. amoo séjour carte consulaire dana la permettre yow. bu bu njëy def euh, lu ci mel ne contrôle ak yu mel noonu. Mhm. boo weeree sa carte de séjour dana la permettre ñu bàyyi la identifier ñu bàyyi la nga dem. mais li ci gën a garaaw tamit ñu ngi ñu ngi invité aussi Sénégalais yëpp képp koo xam ne yaa ngi fiy ñëw daal ak situation boo mënti ñëwee fexeel ba jege ñi nga xam ne ñoo nekk fédération bi pour nous la carte consulaire. même pour nous pour la bonne information. Nous xam nous parce que nous avons sécurité. effectivement bon pour le nous donc da ngay sax mm-hmm. comme le président da ngay carte moral mu ñëw mu ñëw mu ñëw def lu ko ci neex suba nga ñëw mu la mu raa loolu loolu maam dañ koy jànkonteel c'est des c'est des situations yoo xam ne mm. ñun sénégalais dañ koy jànkonteel moo tax li ñuy def daal euh, mm. di di di dañuy invité sénégalais yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Istanbul mm-hmm. ak képp koo xam ne yaa ngi ci kii mm-hmm. yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi yaa ngi c'est la communauté la rek mm-hmm. nga ñu am carte consulaire parce que déjà boo xoolee ñun fédération bi Euh, plus de presque Ah. te Moussa sax bëgguma la dog foofu mais mhm. am lu ndaw rek lu ma ko bëgg a leeralal ci mhm. li tax carte consulaire yi gën a am solo sax 2015 mhm. bi président Macky Sall ñëwee ba wax ak président Erdogan pour ñu may sénégalais yi tur euh, permis de séjour ambassade ci registre consulaire bi nga xam ne moom lañ doon enregistré sénégalais yi registre boobu lañ jël jox ko Turquie na waa waa régi jël la li nga wax na solo lool euh, dama ne comme par exemple Mhm. li tax carte consulaire yi. Mhm. gën a am solo sax aussi. Mhm. maanaam jamono bi nga xam ne président Macky Sall ñëwoon na fi 2015 bay wax ak Turquie yi pour ñu régulariser sénégalais yi. ambassade registre carte consulaire bi ñu amee woon moom lañ jël dem jox ko Turquie yi. léegi nag oh. foofu nag bu fekkee ne sénégale bi fi nekk amul carte consulaire kon du bokk di bénéficier wu ci foofu te loolu feeñ na ci. am na sénégalais yoo xam ne loolu moo tax amuñ séjour parce que nekkuñu woon si registre boobu. la kii. les sénégalais. D'accord. D'une part, les Sénégalais, mais l'autre part, l'ambassadeur. Mhm. Parce que, si nous avons nous les Sénégalais nous avons en 1068. Sénégalais. Nous mhm. entre-temps, nous avons les à 1444. Donc, nous avons 1068. Parce que 1068, la fédération est recensée. Nous inscrire.

amna ci sénégalais yo xamné ñun duñu recenser recensé ñu ngi ci té néwun ci bobu mhm. lolu indi won na am sénégalais yo xamné ne amuñ séjour ba légui bala may ñëwaat ci euh, secrétaire général ak euh, Cheikh Gueye mi gérer tout ce qui est euh, social daf ñuy dugal ci seen relation avec nan ngeen di liggéeyee ak le représentant diplomatique de de de de l'état du Sénégal. liggéey bu metti hmm. franchement parce que li tax mu metti mooy tey par exemple imaginer benn carte consulaire. ñu ngi koy timbre bi su fekkee ne euh, dañ koy euh, ci devise état 27 lira lay doon. 27 lira. léegi yow 27 lira la timbre bi pour nga envoyé ko Ankara da ngay fay trente lira mu ñëwaat nga fay 30 lira 60 lira presque dana la ko dikk ak timbre bi. ñun sax ñun léegi sax laa commencé di changer mais ñun ñoo doon jël suñu xaalis di fayal nit ñi sax pour ñu yóbbu carte yi mu dem di ñëw moo tax ñuy kaas toujours pour état bi fexe ba ambass amba euh, Istanbul am consul parce que bu am Istanbul amee consul mais frais boobu ñuy def mais loolu suñu xaalis la xaj na ci ñun te imagine ñu bëri fii ñu ngi wut carte di ci fay cinquante lira mm. mais cinquante lira xaalis la te ñaata sénégalais ki la ko li fi nekk ci sénégalais yëpp ñu dem di ko fay te du am benn taxe revenu buy ñëwaat ci yow mm. nga envoyé ko mu dem mais buñ ñu jege woon wala ñu ki nga xamné mo moo chargé consulaire mais nañ ko dépêcher indi ko Istanbul. absolument consulaire romb na defar. Mhm. jëfewul. deug la nañ ko indi Istanbul mais ça à dire bon état nag. est-ce que loolu am ngeen ci ay échange avec. Euh, chaque jour ça à dire ñun suñu état dafa xaw do comprendre dal parce que ñom ni ñu jàppee diplomatie. bon man Turquie ni ma leen gisee soxlawul diplomatie wax ba juboo lañ gën a gëm. <laughs> waaw dëkk bu nekk ak ay réalité mu quand même <laughs> c'est vrai. <laughs> waaw c'est ça faaw jege ko. dëgg ñun dañ leen ko wax jour. Mhm. yéen li ngeen xam mooy oui monsieur bonjour ñun nag buñ liñ xam bëri na. Mm-hmm. parce aussi tamit dañuy dugalanteeg ñoom. c'est vrai c'est vrai ne ci réalité bi ci terrain bi ak mm-hmm. ñoom la ñuy xam day wuute toujours. Mm-hmm. parce que ñun ñu ne ci terrain bi ñun ñooy dem di gisanteeg ñoom. ñee nag. ñooy joxe directive mhm. mais qui ngay jox directive bu accès ci mais yow da ngay parce que même ñun rek bi président ko wax. Mhm. blocage am lan yi am lu mhm. euh, <clears throat> la du président de la république fii euh, <clears throat> Turquie.

xam loolu li koy waral lu ci ëpp ñàkk a faju dëgg la parce que tey mënoon na ci kër ne ci dëkk boo feebaree dem ci hôpital ñu ne la jàllal ca ba ca des nga jugewaat foofu ñu ne la jàllal ca ba ca des mais loolu boobu boobu boobu stress rek malade di ko dund mun na ko rey te on est obligé imaginer ñu ne fii ba def lu ne mënuñu lijjanti ko ñu dajaleel la wala ñu jël la en charge yóbbu la nga dem Sénégal mais bu loolu rek nga di ko dundaat psychologiquement booy dem Sénégal da ngay dee. ce dëkk bi nga nekk boo fi mënta faju te ñun ñu ne extérieur moo gën suñ faju ñun. waa ñu génn la bi yóbbu la. ñàkk mën a faju maam ñàkk am kayit da si moom moom lay doon wala yan ñooy raison yi. amee xam nga Turquie dafa am système boo xam ne. Mhm. comme li nga wax sànq. dafa spécifique ci yeneen dëkk yëpp. parce que système turc ñun si séjour yi ñu am. permettre ñu faju ba léegi normal ci ñoom parce que même boo fa demee di faju système touriste lañ lay dugal te yow da nga résider am résidence kon yow ci dëkk bi nga bokk effectivement yaa ngi fay sa séjour ak yëpp pourquoi ñu lay dugal système touriste c'est-à-dire dafa am ay sew sew yu bëri yoo xam ne loolu nag état nag faaw mu ñëwoon ci ñun di ñu jege di ñu gën a déglu li ñuy wax mais dommage que ni ñoom bon yow booy wax ñoom comprendre uñ fi ñuy waxee moo tax pour nga faj problème mu moodu moodu yi du yomb est-ce que foogoo ni problème bi yëpp mooy ñàkk am consul ndax euh, ambassade ñëpp xam nañ ni relation diplomatique lay dox mooy entre état moom moo ëpp en tout cas si mission donc consul mooy euh, dox lu jëm si wàllub entre en tout cas social entre sénégalais yi et cetera di xool seen i bëgg-bëgg sànq wax nga ko. Euh, euh, sénégalais plus de près de cinq mille sénégalais donc loolu normalement war consul. Ah, mais le aussi xam un consul même vous relation turque ak Sénégal même vous fi ben nit warul parce destination la destination. xam dama lay wax Mali Guinée Gambie. seeni bagage Sénégal lay jaar ñu teg ko ci oto yi mu doog dem ci dëkk yooyu yëpp. ça kon ñun dañoo nekk ci point boo xam ne bu doon bu doon bu doon bu doon mbaar dama naan jën ba gën a rëy. Mhm. ñun la Sénégal la fi mu toll nii ci Afrique ak Turquie. Mhm. kon ñun waruñoo ñàkk dara. mais dommage que ni ñun. bon Modou Modou dañ leen a jàppee dof ñun <laughs> état comprendre ñu quoi. <laughs> te Modou Modou wax dëgg yàlla ay borom xam-xam lañ ñun xam nañ ci dara eh, eh, ma may la nga la tuuti ma ñëw si euh, Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nga yor lépp lu jëm si pour social ci euh, fédération euh, bi ëmb sénégalais yi nekk fii ci Turquie sénégalais bii doog a ñëw c'est premier pas maanaam tànkam yu yëkk si si si Turquie ah, nan ngeen koy accueillir nan ngeen di doxalee moom. waaw asalaamaaleykum ñu ñoo bokkal plateau bi yëpp di nuyu waa Lamp Fall TV di rafetlu seen ñëw fii ci Istanbul Turquie di rafetlu tamit jéego yi ngeen def pour dalal ñu waa fédération bi euh, pour ñu wax yitey sénégalais yi nga xamante ni ak jafe-jafe sénégalais yi nekk ci dëkk bi ñu ngi rafet loolu bu baax a baax di nuyu son excellence monsieur l'ambassadeur Cheikh Gueye sama turandoo kon ni nga ko waxee waaw di nuyu sénégalais yëpp di wax ne maanaam kàddu yi ñu fi ekk e-, ekkiti pour ñoom la dépp lu ñu ci wax rek loo xam ne jub na rek ñu xam ne suñu borom la. lu ñu ci wax euh, mu safaanoo ñu xam ne matadi doomu aadama la. waaw di la wax ne la wax nga bu am solo waaye mais comme li ñuy wax li am fépp rek gis nga sénégalais bu ñëwee ci dëkk maanaam dafa am pàcc yu bari yu fi am peut-être di nga am kër Serigne tuubaa loo xamante ni mën nga fa jaaree pour mën a ci benn côté. di nga am naan kër Maam El Hadj mhm. peut-être foofu mën nga fa jaaree pour mën a intégrer. mais di nga am foo xamante ni ki ëmb sénégalais yëpp muy fédération des sénégalais de Turquie moom moo ëmb mu di ëmb tiijaani mu doon loo xamante ni tey loolu ñu fi teg la pour jafe-jafe bu sénégalais am ñu dugg àndandoo ko pour mën ko lijjanti waaw nit ki nag bu fekkee da nga ñëw ci dëkk boobu li am solo mooy dangay ngay jéem intégré ci bërëb yooyu pour ñu mën la xam pour en cas bu jafe-jafe taxaw ñu mën la taxaw loolu mooy li nga xam mooy premier base yi ndax boo ñëwee rek bu fekkee mën nga bañ a àggee sax ci fédération foo jaar ci côté yooyu war nañ la a teg dans les bonnes conditions pour nga mën a ximili ko mm-hmm. mais ñun sénégalais lii suñu cat mooy euh, bu ñëwee ci dëkk daanaka li ñuy ñor dëgg-dëgg mooy koom-koom. ñuy def ba am. ndax moo leen indi tamit ah. léegi nag loolu d'habitude moo ñuy tënk-tënk goo xam ne daw boobu ñuy daw day dem ba li nu war a def. wala li nga xam moom moo ñu war a intégré. waxtu yi day gaaw lool. fi ngay xëy fi ngay wàccee benn lay doon. chaque jour nga bu subaa ma dem si daayira bi. si beaucoup <laughs> léegi nag loolu mooy waral léeg su jafe-jafe taxawee nag. nga bëgg daw jëm fa nga war a dem fekk foofu day doon mu doon du trop tard. parce que tey bu fekkee da nga daw jëmi foofu fekk sa jàngoro wala sa jafe-jafe àgg na benn niveau bii nii ñu ne par force fédération dafa war a jug. te fédération xamul ki muy jugal. xamul fan la jugee xamul kañ la fi ñëw day doon problème. Mhm. loolu moo ñuy faral di daal nag. moo tax bi daal li si jiitu mooy il faut que nit ki bu ñëwee déclaré wu présenté wu wax ni man sénégalais laa. nangam bokk si daayira bi. parce que suñuy wax daayira aussi. Mhm, mhm. fédération bi mooy daayira bi. daayira bi mooy fédération bi. ndax ñu ko constitué ku si nekk yaa ngi si. mbooloo yooyu waaw mbooloo yooyu ñoom ñoom la sax. ñoom ñi ne ci daayira ñoo ne fédération yi. moo waral maam chaque jour ñooy bokk li ñuy defandoo tey bu fi xew-xew amee comme ni ko président waxee nit faat fi daanaka day consulter ñaari jëwriñ yi muy jëwriñ Massar ñu ngi koy nuyoo passage ak jëwriñ am Amdi mhm. mi nga xam mooy jëwriñ muri di dañ leen consulter ñu ñëw toog nun koy defee ak nun koy taxawoo ñoo ciy ànd mhm. def ko nin koy defee te mu rafet loolu ñu def ci ay jéego ba kooku ñu fexe jébbal ko ay mbokkam mhm. kon dèjà kon base bi foofu la may woo Sénégalais yëpp ñu intégré wu ci loolu mais tamit comme social dafa doon benn affaire boo xamante ni te nit ki bu fekkee danga bëgg tey jafe-jafe ñëpp lay dal kenn bu mu jàpp ne mën na boppam ndax moom télé dafa doon loo xamante day dabe yàlla yéex mm. nit ki nag boo jàppee ne da ngaa mën di dox ci sa sago ba yaakaar ne doo tëlee aussi tamit day doon benn cas boo xam ne day xaw a compliqué mm-hmm. boo ñëwee ci dëkk da ngay fexe intégré ci comme ni nga ko waxee bu dee fédération bi nga wut quatre membres mm-hmm. ñu bokk ci fédération bi boo amee jafe-jafe duñ ci xaar kenn dañuy ñëw mën a taxawu la bu la taxawoo xool naka na lay mën a jàppalee pour nga génn ci situation boobu mm-hmm. mais côté bi fii moom dëkk bi euh, méttiwaay gi ñuy wax moom foo ko weesu na ko surtout ñi mujjee ñëw deux ans yi weesu ndax dañoo ñëw fekk fi crise bu doy waar économique waaw ndax euh, nit ki bu fekkee da ngaa daw dem ci àll bi koom-koom ngay ut pour loo yóbbul sa njaboot ak loo leen dimbali mais ñun yoruñu euro yoruñu dollar liira lan yore te livre turki bi fi mu nekk boo koy convertir jamono ji yële ci ginnaaw ak jamono ji daanaka dafa doublé na dafa doublé te loolu bu fekkee ne nit dafa ñëw pour ut si conséquence yooyu mu fekk ko fi bu amul ndimbal wala amul taxaw rek maanaam caalig dali ni dikkal mhm. bari na fi trop trop trop bërki de bërëka ci mujj am na ci benn koo xam ne xel moo dem mhm. te dara waru ko ndax bëgg loo amul wala jéem loo xam ne day të voilà te tamit njaboot xaar la wala famille xaar la mu doon lu xaw a metti stress boobu mën na la caalig yi seen fonds fan lay jógee si cotisation wala da ngeen am subvention ci ñaari état yi mm, voilà fonds bi xam nga ñun Sénégal nag lii suñ problème mooy cotisation moom yóbbu. wala amu leen fond <laughs> cotisation yóbbu ñu waaw ñun li ñuy am euh, comme boo jël bu li ñu suñ base. Uh-huh. mooy am na ay jamono yàggoon na président ñëwoon na fi am benn fond boo xam ne mayoon nañu ko pour mu doon euh, ci suñu kees. Uh-huh. bu yooyu loolu weesoo Sénégal yi ñoo jënd ay carte membre ñu. ba jox na leen xaalis bu bari rek. waaw <laughs> président moom xam nga li muy joxe moom day doon loo xamante ni rek pour jàppale Sénégal yi la. Hmm. léegi loolu lañuy ñuy def base bu ñu ko defee base ëlbatiku. Euh, xol sénégalais ñu jënd carte membre mais boo xoolee y' a plus de 4000 ou jamono yooyu noonu wala 3000 quelques sénégalais. mais li jënd carte membre matul 200 personnes. kon ya xam nga ne kon jafe-jafe am na. ñun Sénégal lool moy suñu problème manam ñun euh, cotisation mo ñu yóbbul. Mm-hmm. légui nak li waral lool mo waral bo ba légui jafe-jafe bu amé rek yow lo mënti yor du feñ mm-hmm. ndax benn cas wala ñaari cas rek. bu amee rek surtout maag nit faatu fi rek boo jëlee ca la nga yor boole li la sénégalais yi boo ko defee benn yoon ñaar yoon boo xamee li nga yor day jeex loolu nag day répété wu loolu moo tax maanaam jafe-jafe day am te am problème ndax duñ cotiser mais dinañ mën a ñëw tey li ñuy dañ koy jaay pour li nga xamante ni bu sénégalais feebaree ñu jàppale la mënuñu jënd mais cotisation du am xam nga ah. looy jëndee cinquante lire environ mooy carte membre carte membre cinquante lire benn cas képp mën na yóbbu cinq mille lire ndax comme li président wax rek mm-hmm. santé daf fi cher de telle sorte que nga am séjour wala nga ñàkk séjour ci yem nga am séjour wala nga ñàkk séjour moo ci yem maanaam santé daf fee cher cher goo xamante ni nun ñu ci mën a dimbalee parce que tey dañ doon wax dañ doon dégg man comme dama dégg naan boo feebaree Sénégal pour nga fajo fajo bu jaaroon faaw nga dem bitim réew kon boo nekkee bitim réew mënoo fee fajoo am na fi ñu bari ñun xam fii dañuy feebar ñu ñoo leen taxaw taxaw taxaw bu mënatunu waaw ndax am na yenn réew Europe yoo xam ne seen politique sociale franchement. merci beaucoup merci beaucoup ñoom boo boo xasee ba intégré si dëkk bi yor say mhm. carte séjour ak yooyu. Mhm. wax dëgg yàlla tout est pratiquement tout est gratuit. amu fi amu fi nag pour mu keleen ñu wax à haute voix pour àdduna sépp bu ñu mënee déglu jàppale ñu ci loolu. parce que nit dafay feebar sax ñu entré ko di ko fayloo yenn somme yoo xamante ni day obligé ñun dañuy fexe ba mu génn. Mhm. bu génnee ñu daggal ko billet mu dem Sénégal faj wër. faju fa du benn nit. du ñaaru nit du ñett nit yoo xam ne def nañ ko. dañ ñuy woo di ñu xamal ne ñi ngi sant yàlla bu baax. kon lan mooy problème bi. jërëjëf a la respecté. maanaam et puis et puis ñoom lii problème bi mooy joxuñu cër étranger. Mm-hmm. surtout ñun séjour bi ñuy wax pour ñu ma jàllale ci apa au passage. Mm-hmm. ñun yoruñu séjour boo xamante ni mën nañu permettre ñu comme séjour comme ni que permis de séjour yi may dégg à l'étranger. Ah, comme lu mel ne Europe wala fenn Amérique. Ah. ñun amuñu séjour am mooy mm-hmm. Euh, séjour pour touriste. Hmm. Ah, wala business merci li nga ci mën a def mooy. li euh, am euh, indépendant ci dëkk bi comme bu la police garé wala nangam nga mën leen wan ne la ñu identifier la bu weesoo loolu nga nekk en règle mën nga ci dem Sénégal hmm. dellusiwaat bu weesoo loolu amul benn opportunité bu mu la mën a may ah bon lii mooy séjour yi président kon am na liggéey bu rëy buy xaar sunu sunu sunu nguur yi

pour carte de membre depuis 2018 mais loolu tamit secrétaire di ci si ñëw ndax est-ce que euh, du du problème de de de de communication ndax yéen yéen ngi sensibiliser aussi mm-hmm. sénégalais yi. non dafa am lu am xam nga après corona bi. waaw dafa am yu bari yu mu am. Mm-hmm. parce que ñun suñu mandat. Ah, ci deux ans la calé woon. d'accord ci diggante bi corona bi ñëw. Mm-hmm. permettre ñu. ngeen wote assemblée générale d'accord ab defee un an def nañ assemblée ordinaire o ñep léral leen liñ andé ak li fi nek ne leen ñi ngi doxat jëm ci benen xam nga lolu lu leer la effectivement biñ défé 1 an rek dañu wo ñep ñep ñew mais contexte mayu leen pour ngeen di wote wat en fin de mandat wa bon bi corona bi ñew tombe ak aussi tamit sénégalais ñep am këyit ñi di dem vacances mëna to dajalé nit ñi pour organiser ay assemblée tamit mais depuis boobu ba léegi aussi yalla ngi sutura ndax amaguñ kaa bu ñu réglé wul waaye pour leeral ñit ñi xam ne loolu nekkoon fi ci xaalis bu fekkoon ne loolu rek moo fi nekk benn kaar rek mën na ko lijjanti ndax fii da nga fiy feebar dem benn nit bu feebar ñu ne la cinq cinquante mille lire sax da koy dégg doo ko wax malaat bi bëri na yoo xam ne Cheikh ak ni man dimanche dañuy ànd dem ci hôpital di xool malaat yi am ñoo xam ne ñeme woo leen a wax ne lii lañ lay fay lañ lay fayee ko parce que boo ko waxee mu dee ku yorul mille lire ci poosam nga ne ko boo jugee fi cinquante mille lire ngay fay boo ko waxee mu faat mais da koy gere yow fexe bu génn après ñun ñu gérer ko ba mu dem mm-hmm. donc loolu tamit nag mooy li nga xam ne moo fi am mm-hmm. président bi ñu ko ciy wax toujours day génne somme ne lii dama leen ko dimbaleegum pour ngeen organiser wu ci mutuelle mm-hmm. mutuelle toujours moom loolu lay indi beneen bis topp ñun dañ lay jox solution dañ ko jox solution boo xam ne dañ na ko ñun dañu gis ne tey turki yi fiy jógee di dem Sénégal société yi parce mhm. am na lu ñu ci xam. effectivement wuur mhm. nañu ne mun nañ ñuy garanti suñu faju ñun. Mhm. ah bëgg convention de. mënoon na nekk. dañ leen koy wax cest dire état moo neexut a waxal mais dañ ñun am nañ xel ni dofuñu dañ leen di wax na leen société yi dem Sénégal yëpp. tey bu fekkoon ne dem nga ci benn société ne ko sénégalais bu nekkati turki di fa feebar buy faju cinquante pour cent yi dañoo bëgg société bi jël ko en charge société war nañ ko mag mm-hmm. ñu nga fay quarante yi ñoom ñu fay soixante pour cent yi wala nga fay dix parce que li tax ñu xam loolu léeg-léeg nit feebar fi ñu dem ci social yi hôpital bi mm-hmm. pour lijjanti ko mm-hmm. mais bu ñu demee ñoom dañuy ubbi seen machine yi am na ay nit yu fa jaar wala am na ay sociétés yoo xam ne bàyyi nañ fa seen xaalis boo xam ne bëgg nañ koo xam ne dañ lay dimbale ci loolu social ñu ko fay dugal di ko wàññi di ko fa dugal di ko wàññi ba fa am wa am fu mu yem ñu ne la lii nga mën a fay nag bu doon 10 000 ñu koy wàññi di ko dugal di ko dugal ba mu doon 3000 ñu ne la lii nag fii la mën a yem comme sakam turki yi ñoo mën loolu waxatuma la société yi nga xam ne ay société yu mag lañ di gañe lu ay marché yu mag Sénégal waroon nañ ñoo mën a garanti ci loolu te wax nañ leen ko benen bi si topp boo ñuy wax naan ñu lu melni ni suma ñëwoon nañ fi couverture maladie universelle. waaw bi fi ñewé daw ñu wax ci semi waaw ñu wax ci pour nan lañuy def ba parce que ñom am nañ benn pack bo xamné pour les immigrés là 7000 la mhm. je crois lañ koy jaay par année. Mhm ñu ne nañ ñu ci dugal ñu woon fi ak benn société assurance bu fi nekk CGK pour xool parce que dañuy gis ne sénégalais yi pour ñu faju fi il faut assurance am ci mhm. bon biñ ñëwee waxtaan nañ ci après du am suite wax naa ko président barki dem bi ñu fi ñëwee. wax naa ko ne loolu ba ba nga fi njëkkee ñëw yabal nga leen fi ñëw nañ fi. Hmm. mais amaatul suivi. nee na bu demaatee tamit dina ci wax ak ñoom ñu xool nan lañuy ñuy def parce que suñu problème moom pour mu réglé wu ci faju ñoom dañu gis ne assurance la d' accord assurance la mais nañ ci dox. Hmm. ñun bañuñu parce que ñëpp bëgg a faju ah tey li ngay daj ci hôpital yi bu ñu amoon tey assurance boo xam ne même bu ñu koy jaayee cent euros par weer sax. sénégalais yi dinañ engagé wu parce que ñëpp a bëgg a faju munoo di am xaalis chaque jour dëkk ci feebar te munoo faju mhm. loolu moom état lu ñu ci war a mën a gën a dimbale mu gën a gaaw ci ñun mhm. dafay baax parce que sénégalais yi bañu ñoo bañuñu koo jënd mhm. mais dañoo xamul fu ñuy jaar kon état aussi tamit convention yi muy signé ak Turquie wax dëgg yàlla war na ci dugal santé dimbale sénégalais yi fi yéen daal bu leen déggee euh, pa Moussa dafa mel ni moom seen bopp ngeen fi nekkal maanaam amul dara lu leen fekk si. du du du du état bu Sénégal. Mhm. dëkk bi ngeen nekk moo waxaale moo ko quoi. dafa ni loolu leen jëm yéen ko jéemal seen bopp. away away away que boo xoolee pratiquement la moo tax mu xaw a metti sax. Mhm. mooy comme sànq ni ko Cheikh waxee ak euh, président Pamatar mhm. problème bi fi mënti am ñun Sénégalais yi ñoo jug maanaam da ngay sax des fois am kersa parce que da ngay gis Sénégal bi fuy léegi bu fi tawat léegi wala bu fi am problème léegi léegi nii nga dugg ci Sénégalais yi cargo bi ku ci laaj leen ku ci ne joxe fukk ba lijjantil ko bala ngaa pare ci loolu sax gis keneen koo xam ne euh, am na problème yu mel noonu. Mm-hmm. te da ngay sax am kersa si je me trompe maa ngi fàttaliku benn jour euh, am benn Sénégalais boo xam ne dafay amoon problème ñu àndoon euh, man ak ñoom Cheikh ñoom ñoom Cheikh. Mm-hmm. doon ci doon ci dox. bi ñu paree ci loolu rek avant <laughs> ñu pare rek beneen kaa man la man moom franchement dama am kersa demaat ci kii parce que daanaka day mel ne ñaari laaj la te te te effectivement ñaari laaj la mais day mel ne kon kenn nit ki la te daanaka day xaw a metti mm-hmm. boo gisee fond bi ñuy sànq yaa ngi koy souligner tout à l'heure mooy problème mu sénégalais pour cotisation cotisation c'est important aussi sensibilisation. effectivement ñu ngi def sensibilisation inciter inciter à ce que nous ñuy effectivement parce que boo xoolee quatre quatre fédération bi. Mhm. bon quatre membres pour une année là, mhm. bu une année bi jeexee da nga koy renouveler mais bon boo xoolee ak euh, comme ni ko sànq président Pamata wax ak période bi nga xam ne période pandémie bi la. Covid bi mhm. donc dafa une perturbation yu bari yoo xam dafa amoon ci ci ci ci bi maanaam mooy. Euh, tey renouvellement yooyu noonu pour nga def ko c'est un problème de un de deux Sénégal yi ñu amandoo six jours ñëpp demandoo Sénégal léegi donc pour nga def assemblée générale ça pose problème aussi tamit y a sénégal yoo xam ne Sénégal lañu ko boole koy fa donc c'est des yoo xam ne c'est des yoo xam ne ñun dañu koy dund mu métti loolu boo xoolee rek dama koy dama koy dama koy xam naa bokkul ci kii mais dama koy jàllale waale ñun dañoo nekk Sénégal nekk fa ak yi. Euh, plus de presque président plus presque 400 euh, sénégalais mais d'après yi nga ñoo fa bloqué sénégalais de séjour dem ba Sénégal bloqué wu fa mu bëgg Turquie ñu am jafé jafé yo représentant fédération fédération bi. Mhm. ñoo ci ñoo ci pour sénégalais rek visa pour ñëwaat rek problème la tey yaakaar naa bu fekkonte ne euh, ci yeneen dëkk yi la da ngay indi sa séjour ak sa passeport ñu defal le visa boo demee nga xam seen séjour jeex parce que am na ñoo xam ne ñu dem deux ans am na ñoo xam ne def nañ plus de deux ans au Sénégal. Mhm. donc mu nekk problème yoo xam ne dañ koy dañ koy jafe bi ñu demee ba ci ambassade bi ñun def nañ fu ñu joyit nañ ko ñun ñun ñoo nekkoon délégué fédération parce que demoon nañ ci euh, muy Sarr demoon nañ ci euh, ki euh, François Amadou Gueye mooy directeur de Sénégalais de l'extérieur demoon nañ fa rencontré que waxtaan mm. nañoo moom mu boole ñoo ay ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal donc ñuy déggante ñoom mais bon à chaque fois bu ñu waxee ñu ne bind nañ bind nañ comme ni ko sànq Pama Tara dafa am turki dañoo toll foo xam ne du bind moom moo leen di <laughs> moo seen dem seen diplomatie du bind donc am day nekk loo xam ne joonu joonu lay doon voilà joonu joonu lay doon maam loo xam ne da nga koy faj ah. ci saase mm-hmm. ñoom noonu lañ ñoom noonu la ñuy doxee ñoom. Mhm. donc bi loolu amee aussi mu nekk loo xam ne lu metti la tamit dama koy wax parce que ëllëg mën naa dal beneen Sénégal bu fa nekk. Mhm. mën na nit Sénégal mën na faa dem feebar fa séjour am jeex. Mhm. nan lay def ba ñibbisi Sénégal mën na faa dem tamit am fa ay problème nu muy def ba ñëwaat bi loolu amee ñun ñu fexee dem ba bi ñu demee ba amatuñu pexe dañoo dem ba buntu ambassade ñu recensé Sénégal yëpp dem ba buntu ambassade. bi ñu waxtaan ak ki nga xam ne benn turki génn ñu waxtaan ak moom nuyu ko mu ne ñu ne ko bon ñun de dañoo nekkoon turki booba léegi affaire yi léegi ñu bëgg a dellu Turquie mais dañ dañuy laaj papier euh, comme papier ñuy laajaat pour ñu mën a dellu Turquie daanaka am na euh, ñu ñëw Turquie est est-ce eh, laaj compte ah, que loolu daf ñuy arrivé lu bare bari Sénégal méttoon trop trop parce que man def naa fa un an quelque bien vrai que sama procédure mi ngi woon en cours mi ngi doon dox mais mënuñu woon dem ak fédération bi ne ma mënoo dem bàyyi fa sénégalais yi mhm. parce que fédération dañu mënoo dem seen Turquie bàyyi fa sénégalais parce que mun leen mun leen représenter sénégalais pare bëgg lii am nga dem ba ko continuer seen activité te wax dëgg yàlla tamit mu nekk loo xam ne sama borom euh, ñu ngi ciy saluer waale mhm. euh, son excellence euh, mooy Serigne Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkoon sénégalais wax dëgg dox na ci jéego yu am solo mhm. parce que sénégalais wax dëgg yàlla sama borom dogal na sénégalais fi nekkoon yëpp plus de soixante-dix sénégalais yëpp am nañ visa ñu bisi waa na ci jàmm mais dafa nekk loo xam ne il faut que des fois ñu koy souligner waale Sénégalais di ko xamaale parce que dafa nekk loo xam ne lu metti la dañ koy dund bi ci topp mooy euh, Sénégalais plus de 4000 Sénégalais ñu ngi ci dëkk bi te 200 200 Sénégalais képp am ci carte de membre maanaam loolu tamit c'est un problème boo xam ne war nañ di ko bàyyi xel bu ñu organise bu ñu amee lu mel ne association wala fédération wala lu ci mel ne daayira yi ñuy jaay carte de membre ak lu mu ci mën a doon parce que carte de membre euh, même bu fekkente ne yow da jàpp ne yow faju la mën naa faj sa sa bi nga xam ne mi ci dëkk bi mhm. ndax benn carte de membre cinquante lira mënut a faj cent personnes des fois da ngay sax am problème ñu naan caisse fédération bi des fois da ci nek lo xamné ñun suñ bi des fois ñooy cotiser ñun des fois bala ñu dem ci kenn dañuy cotiser ñun suñ bi ne la ku ne li nga yoon ko génn tek ko bu paree doo ko dox jëm ci Sénégalais laaj té bu ñu doon am euh, revenu maam lu ci mel ne benn fonds bo xamné dañuy permettre chaque fin du mois Sénégalais bu ci ne cotiser parce que defoon nañ ko ci règlement intérieur am règlement intérieur liir nañ ko Sénégalais dégg nañ ko assemblée bi ci fu mu jëen def bi président Pambata sank wax nañ ko fa pour cotisation chaque fin du mois Sénégalais di cotiser bu ko defee ku febar

Euh, Turquie euh, pratiquement sénégalais yi fii c'est une émigration du yomb parce que bu ñu ñëwee si cargo yi li ñuy liggéey ak et pourtant euh, Turquie ñëpp xam na ni soxla nañ main d'œuvre parce que le pays est en chantier dëkk bi dafa nekk en chantier. je pense même bu dul commerce business bi ni nanguwuñ ku liggéey si yeneen si un domaine. non du yombul parce que tey Turquie pour. Voilà, lan la ñuy laaj pour nit ki liggéey si yenn. permis de travail <coughs> te permis de travail Yombo la ko pour nous accès pour am ci.

da ngay dem nga ne li ma fi toog laa bëgg a fay bu subaa ma mën a ñëwaat. waaw nga dem fay ko ba pare ñu defal la kase na la cinq ans doo fi duggaat. ñaata sénégalais lañ ko def yoo xam ne duñ ñëwaat fii. nga xam ne ñu fi jot a cotiser moom ñàkk nañ ko. fay ñàkk nañ ko. Ah. mais loolu lan moo ñu koy waral mooy ñàkk suivi état bi nga xam ne war na jege sénégalais yi ak xam lan mo nekk ci législation turque bi parce que loi la loi dafa am fu jaar bu wàccee ñu man mënu ma koo jot ki mënu koo jot mais xanaa dana jaar ci ambassade bi wala ci état bi ñu ne ah léegi Sénégal moom léegi ak wala adduna bi yépp ku ne turque boo fi génnati c'est fini mm-hmm. cinq ans mooy interdiction mais buñ ko xamee benn sénégalais du fi génn mais imaginel nga toog fii

patch sénégalais yi nga xamante ñoo fi nekk. mu mel ni maintenant am na beneen bu bees bo xamante ni turc ñu ngi koy commencé xam muy les étudiants. les étudiants sénégalais. di ñëw fi turquie ngir di jàngi ndax li ñu xamone moy Europe wala yenn ci dëkku yi mais maintenant c'est c'est une destination prisée par les étudiants sénégalais. non mais xam nga turquie aussi tamit euh, man damay wax li am daaw ak ren. c'est la première fois bi fi nekkee ba léegi mu am wala ren sax laay wax. li am daaw benn convoi boo xam ne mais 300 sénégalais ñu indi leen fi ñi fi jang man lolu kenn mënu ko comprendre y a un problème ak ku mën signer loolu parce que aussi tamit ñom ñu ngi ciy wax état mënul mënu jël. micro bi moom moo moo moo mo leen jël en charge boursier leen ñu ñëw fi. 300 étudiants mais lolu lolu kenn comprendre ko. donc am na si des boursiers pris en charge par l'état am si ño xamanteni ni ñoo ñëwal seen bopp am si ño xamanteni aussi. Euh, dafa am des tey gis nga li ma la euh, wax sank ci visa yi. Mm-hmm dafay duggaat ci biir yi. kon y a de réelles difficultés pour pour les étudiants. parce que étudiants yi aussi tamit chaque année da nga war renouveler sa carte de séjour. étudiant bien sûr parce que loolu mooy tax ñoom ñu xam ba xam ndax yaa ngi étudiant ba léegi am et pourtant am étudiant yoo xam problème beaucoup la ñuy am ba duñ jàngaat parce que duñ xam sax fan lañu war a jaar pour renouveler waat seen carte de séjour yooyu Le problème bi dafa général il faut turku état man dama dama naa ko bari ki démb Macky Sall président Macky Sall ne ko ministère yi nga am yëpp mënoon nga leen yabal turku ñu ñëw di liggéey fi rek doyna liggéey parce que fépp am problème étudiants yi ñëpp problème. mais malgré ces doléances doléances yi ngeen euh, teg table en tout cas ci ci loxo président bobu légui ci digënté bi ban mo ci safara wu. bon ces jours yi wax na ci ñu ci te japp nañ ne inshallah allah mën na ci def jamm ces jours par exemple. comme ñi récent yi nga xam ne fi mujjee ñëw te amuñ permis de séjour mm-hmm. bon yalla mën na ci def jàmm pour ñuy circuler librement ci dëkk bi am seen carnet de séjour wa mm-hmm. pour mën quoi aussi je pense bien que comme kaaw étudiants yi dem na seeti leen Karabouk amna benen dëkk bo xam tamit dem na fa séti leen waxtaan ak ñom xol ci luñu ñu ne mais aussi tamit gis na euh, dama wax toujours ne étudiants yi ak ouvrier yi ba adina di tukki mënu ñoo bokk idée mais war nañu mëna a bokk jataay. effectivement parce que mentalité yi mënul doon benn. Mm-hmm. mais war nañuy mën a jege wantoo ci jataay te dama koy toujours ñun fédération bañ ko defee ba léegi dañ leen ci intégré mais étudiants yi dañuy daw. dañuy beru. do dañ chaque jour. benn waay moo ci nekkoon seen président bi muy xaadim xaadim rek moo ci doon nangoo participer di ci dugg mais ñoom dañ ñu jàppee ay <laughs> ñu xam ne mooy loolu mais d' accord amul problème. la dagg du la dagg c' est vrai il faut ñu ñëw. mu daaneel c' est vrai c' est vrai c' est vrai il faut ñu ñëw jege fédération bi parce que benn. Mhm. ñun mun nañoo bañ a jàng mun nañoo bañ a xam lu bëri. Mhm. mais ñoom su yàlla dogalee ñu jàng xam ko parce que ñun dañuy soxla bind. Mhm. turc bi ñuy làkk ñun. tey bu président ñëwoon man waruma bu fi président Erdogan ñëwoon waruma koo làkk man parce que étudiant bi turc bi muy làkk moo gën a am discipline que ni man bi may wax parce que bi may wax man ci marché bi rek lay jógee. waaw ah, moom bu classique bi la yor mi ngi noonu. Hmm. kon waru ñun leen a ñàkk ñun. Hmm. mais dommage que ni ñoom intégré nañ leen ba sonn ci biir affaire bi mais dafa mel ni dañuy daw affaire bi toujours te dañu am problème. Hmm. parce que mun naa nangu tey état di fi indi ay étudiants. mais ma comprendre benn nit am convention ak benn euh, entreprise wala benn euh, école mhm. wala benn université. du ah, fi indi ay sénégalais mhm. mooy yi ñuy tuddee ay agence parce que moi aussi c'est la même chose que agence ni ni ñi tuddee seen bopp agence ah, di jël ay xalé yu jigéen di len yóbbu yenn dëkk nari pour ñu fay liguey euh, na yalla yàlla jégal ci condition yu métti la ñuy la ñuy la ñuy dund je comprends bien mais mais ñi nga xamanteni ils sont des étudiants boursiers état indi len fi ñooñu est-ce que état mu ngi euh, mu ngi len di jël en charge xam nga président biñ fi ñëwé wax nañ ko ci hmm. parce que man li may wax toujours lu leer la dafay wax ñaari wax tey du tey jii la ko wax bërki démb waxoon na ko bu njëkk ba mun mm-hmm. na ñoo tabax ay université fay ay professeur lii ngeen di jàng si fii ñun sax xamuñ ko mm-hmm. parce que am na fi yoo xam ne mun nañoo jàng fii ba pare bu ñu ñibbee Sénégal duñ liggéey mm-hmm. parce que li ñuy jàng fii mënuñ ko liggéeyee Sénégal mais lu tax état ngeen di génn lu tax état di leen fi indi non ñi ñi génnul xam non je parle de yëgu leen damay wax ñi état indi quoi moo tax ma ah, wax parce que état am na ay quelques bourses ni muy ah. waxee dafay wax ne comme ñi nga xam ne ñëw nañ fi te état yëgu ko parce que moom da koy wax toujours. kon ce qui veut que ñi fi état indi moom ñu ngi dans de bonnes conditions. ah bien sûr je pense bien xanaa comme moom li muy wax ne moom ñi nga xam ne ñëw nañ fi te yëguñ leen wala ñoo fi indi seen bopp xëy na ñooñu ñoom ñoo war a xool nu ñuy gérer seen bopp parce que état tamit bu fi indi nit wax na ko bëri ci démb lu leer la wax. mënuñu tabax ay université di fay ay études ay professeurs ngeen bàyyi ko fa li ngeen di jàng si fii ngeen mën koo jàng foofu muy deuxièmement da ngeen di ñëw fii jàng fi loo xam ne sax bu ngeen demee Sénégal du ngeen liggéey wala ngeen fii jàng lu kenn xamul wax na leen ko bër ci démb loolu nag c'est le président xëy na moom moo ma ëpp renseignement ci lu mu mën a tax mu mën koo xaaj noonu ba di ko wax mu leer. pour ça li ñuy jàng dëppoo nag jamono d'après les les investigations. Ah, bon là c'est c'est c'est un autre beneen domaine li ma la wax léegi moo ñëpp information ci. loolu moom voilà loolu loolu man nag chaque jour message boobu damay gis toujours da koy wax. daal mais comme. c'est étudiants yi aussi tamit ni ñu fiy ñëwee. Mm-hmm. te ñu am nuñ ko mën a defee Sénégal loolu moom toujours da koy da koy wax toujours ci discours am bu fi ñëwee. président débat bi du jeex macha allah de li ñu fiy dégg am na solo lool xam naa da nga dañ lay woyofal nga dem si yeneen yitte. ñu eggali ak suñu ñaar sa ñaari naataangoo yi. yan kàddu ngay tàggoo. waa di sant rek euh, Lamp Fall TV. Mm-hmm. mboolem ku fa nekk. di leen jox tamit suñuy nuyoo. Mm-hmm. ngeen joxal ñu ko sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy suñu sëriñ di suñu xalifa yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér sag la ci ñun te nit la koo xam ne waxtu wuñ demee ba gis ko buñ ne ko turk lañu dëkk dañuy gisaat ci moom mhm. mbégte mu rëy rëy waaw moo xobar ci démb rek ndax 2012 Euh, bi ñu fi toogee jaaxle ba mu fi jaaree ca yoonam boobu. defe naa ne séjour yooyu moom lañ ko tuddee woon. te mm-hmm. loolu yëpp dara waralu ko woon lu may ñëw fi ñaanal ñu. yàlla nangu loolu ci moom. jóge France ñëw tuuti waaw kon ku la defal lu baax. wax ko wàññiwul dara. bu ngeen fa delloo it ne ko soxlawaat nañ ñaan. macha allah ndax jaam ñaan rek la soxla. Mm-hmm. te it du ko tàllal loxoom fenn fum ko fu dul fu mu ko yaakaare. Mm-hmm. xalifa Euh, général des Baye Fall it mhm. ah, comme sëñ kii ndaw mu fi mhm. moom it ñu koy yóbbante ci moom it mhm. ab nuyoo dañu xam ne it njaboot gi yëpp benn la seeni njaboot fi ne ah, ñuy ñaan aussi tamit sénégalais bu fi nekk nañ gën a xam li nga xam ne moom la ñuy def parce que nit ki aussi tamit munoo ko critiquer wala nga sori ko ba pare xam li muy def jege bi dafa am solo dañ koy wax toujours fédération bi luñ ko kenn loo ci bëgg a xam boo ñëwee laaj ko dañ la koy wax parce que li ñuy àndee ñun ñii di nekk ci nii kenn fayuñu fayuñ ci kenn benn dërëm ay volontaire la ñuy def pour dem tey seegey mii léeg-léeg mu am mu ma mën a bañ a disponible ma jug doxal ko man mii léeg-léeg ma yebal ko fenn wala Pa Moussa mii la même chose kon loolu ñooñu tamit di leen jàppale te yàlla rek tax aussi tamit nañ leen xoolee bëti ñii dañ ñuy jàppale te yàlla tax parce que du ñëpp mën a àgg fañ mën a jëm ñun ñëpp li ngi ko waxee sànq faw mu am ñu jiitu am ñu topp seen ginnaaw loolu nag taxut ñu gën kenn taxul it ñu gën a kawe kenn suñ borom moo dogalee noonu ñu ciy jéggalu it lépp loo xam ne nit xalaat na ne wax nañ ko ci wala def nañ ko ci lu ñaaw ñu ngi ko koy jéggalu bu baax jéggal na ñëpp yéen yéen a ngi waajal assemblée générale allah ñu ngi koy waaj parce que dafa am ñu tukki rek comme trésorier bi dafa dem Sénégal ak euh, secrétaire général bi nekku fi heure bu ñu ñëwee ñu def assemblée waaw kii mooy deuxième secrétaire général kooku adjoint am kooku bu ñu ñëwee aussi tamit ñu def assemblée loolu moom amul problème mhm. waaw ñu incha allah ñu ngi koy waaj di ñaan sénégalais yëpp am jàmm leen suñ borom delluwaat leen ci jàmm ak salaam ngeen bàyyi fi jàmm fekk ak jàmm ñu ngi sant bu baax jërë ngeen jëf jërëjëf xam naa xat nga trop waaye ñu daaneel émission bi rek ndax euh, euh, benn question bi ñuy daanelee Cheikh mooy euh, ñu ngi si période corona mu xaw a durer tuuti ba léegi ñu ngi nekk ci euh, crise boobu euh, ana nan ngeen ko gérer. waaw loolu moom dañ ciy profité à l'occasion hmm. di wax ne corona bi moom fii ni ko gérer sénégalais yi fi nekk yëpp mën nañ ñu may seere euh, ci li may wax nii parce que comme idée bi nga xamante nii moom lañ ko defee woon boo xoolee muy mel ne Kër Sëñ Tuubaa gi. defoon na fi benn initiative bu am am solo fii la ko defee ci biir kër sëñ Touba gi. ekkiti ci daayira bi li nga xam moom lañ ko doon cotiser. mooy li ñuy faral di wax. kon cotisation lu am solo la. ñu jël ci xéewal gu am solo def ko ay dund def ko fii nii ci kër sëñ Touba gi ñëpp ñëw jël si ko fi ñu jox leen ko gratuitement. macha allah voilà fédération bi tamit yàlla def ci ay pexeem. waaw ci yitte yoo xamante ni ñu ngi ko doon def yàlla def tawféex moom it euh, mu am initiative benn euh, nit koo xamante ni ku ku ku bari yërmande la ku nekk ci dëkk bi doon benn jour. équité mm-hmm. woon somme bu am solo. équité mm-hmm. ko teg ko ci loxo fédération bi ñu jënd lépp ay dund. moom it ci Sénégalais yi ci Sénégalais yi fii. jënd lépp ay dund ñëw équité ko jox ko gratuitement Sénégalais yi. Mm-hmm. teewul aussi tamit pexe yu ñu doon def mooy Sénégalais yi ci nekk ñu leen di nemmeeku. ñi nga xamante ni xam na ne seen cas critique nañ wala am nañ jafe yi seen kër. fayu location yeeg lu mu ci mënti doon ñu xool ñen ci mën a jàppale te yàlla tax mhm. ñu def ko discrètement mhm. def ko ci biir pour xool nun jàppalante parce que côté boobu moom dox nañ ci jéego yu ama am solo ba mhm. sénégalais yi ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ne jéem nañ ci am solo kon nag loolu moom dañ koy saluer à pour ñu xam ne def nañ ko fi bi ci topp moom mooy comme ci côté social moom liñ ciy insisté parce que dëkk bi métti na métti goo xam ne kenn ku ci nekk mën naa doon si social bopp ndax léeg-léeg dëkk ak nit ci kër dafa lay leer na kii loxoom jotul am wala moo la ëpp jafe-jafe wala yaramam sutante na kon nag bu fekkee ne ànd nga ak nit ci kër ngeen dëkk def ay fan war nga mën a nemmeeku kii ci lu mu nekk. balaa muy àgg fenn fii mais nag yërmande bu amul ci kër yi maanaam dëkkin bi. bu fekkee dafa amul jàmm amul tawféex jàppalante wun foofu lay kaa bi di gën a ndax yow mënoo sa kër nga génnee fa di wuti wallu taam ñoo dëkkal kon loolu jafe-jafe mënta weesu loolu day bari loolu nag dangay dañuy fii ñu wax ñu jafe-jafe ñu dem ci kër fekk fa ay magum jëmm fekk fa ñoo xam ne ñoom képp mënuñoo régler situation bi maanaam dimbal na sa fekk loxol borom social si léegi ñëw indi seen at loolu moo ñuy jaaxal kon nag léegi dañuy waxaat ñëpp bëgg a wékk lépp fédération très bien wala ah, ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ am ci ñoom yaakaar moom daal dëkk bi euh, métit gi foo ko nattuwee sama ko mhm. waaw mais nag euh, ay gor ñoo fi nekk ak ay jàmbaar mhm. ñu doon jàmbaare loolu sax mhm. ñoo xamante nii ñoom seen yitee lañ nekk lépp lu leen métti wala lépp luñ am jafe-jafe koy dundee ngor bu mënta ñàkk bu mënta ñàkk lay génn te bu génnee suñ borom dana dogal ñi nga xam ne ñoo ci war a dox wala ñu war cee taxaw danañ ci def sutura ba lu a lijjanti <laughs> ndax lu fi rek ci ñoom nga jëm si waat dugg ci cargo yi dugg ci kër gi dugg ci bonne volonté yi ñenn ñoo xamante ni tey loo leen laaj ñu jox la mm-hmm. pour fexe sénégalais yi ñu nekk dans les bonnes conditions mm-hmm. waaw mais nag moom li ci ëpp ëpp ëpp solo mooy loo xam ne dañ koy ba àdduna sépp dégguñu ñun fii nii jafe-jafe bi ñu am mooy feebar faju feebar faju am nañ problème santé trop ah, trop nga am séjour nga ñàkk séjour mm-hmm. suñ jigéen ñi nga xamante ni dañ fay nekk mm-hmm. même bu ñuy nekk en accouchement mm-hmm. problème bu mag a mag a mag la dañuy nekk ci hôpital yi nit bu amee jafe-jafe boo demee hôpital pour man boo taxawee rek war ngaa mën a wér ci xel ak ci xalaat ak nin lay contrôler mais fii da ngay ñëw daanaka mën nga xëy la bërki dem ba ci mujj même pas trois jours peut-être malade bi mu ngi jàkkaarloog man di ma seetaan toog dugg naa dix heures hôpital ba dix huit heures laa fay doog a génn fu ma dugg génn dugg fa ca des jigéen mu jigéen malaat bi dafa jékki-jékki daanu ci man oh. ndax boobu fekkee ne pression bi mu ngi yëg pour moom xamul lan moo ko dal te dara dalu ko maam ni lay accueillir rek ni lay contrôler ni ñuy defanteeg yow mooy dem ba yow sa stress day gën a yéeg bu yàlla dimbaloo daanaka sa feebar day yokk mm-hmm. waaw boobu noonu nit nit moom kese yóbbu boppam déedéet déedéet ko defee maanaam mën ngaa ni sabab ja négligent boobu dafa am ci dëkk bi mm-hmm. te loolu xamuñu lu tax kon nag di ñaan suñu état yi ñu utal ñu ndimbal comme ñu ko waxee ndax mën na nekk ñoom bu ñu taxawee parce que man mos naa dem hôpital yóbbu benn malaat ñu fay ma dagg ki ñu ne ma lii pour lan la li nga fay dafa cher manaka ki di li la yore mu ne pourtant loolu meun na ñak hmm. ndax amna fi ay dekk yo xamanteni ni convention état ak état yow li nga fay ni xaj bi xajab lañuy la fay hmm. pour tiké ba pare ma yemuma ci loolu ma jëron liste mi ngi won ak man sax ma dem ci bir dem ba fi loolu am ma genn liste ñu ñu ma jox ma dekk yi day dekk yu bari yo xam may ñoo gis liste bi ni la. kon pourquoi pas Sénégal ak Turquie ak tamit li leen lié ñom fim nekk ni ci business ci liggéey ci lu bari lo xam ne Turquie am nañ ko Sénégal hmm. kon nak ñun ñi ngi ñaan. Euh, bu dee état bi ñu ñuy dégg ñu jàppale ñu ci loolu. Mhm. ñu dimbale ñu pour bu feebaree ba faju parce que dañ koy wax président Macky Sall dañ naan ko bu dee li liggéey di maye soxlawul ko ndax mën na noo liggéey. Mhm. bu dee lamit loo xam doole da koy joxe soxlawuñ ko ndax suñu doole gi yaakaar nañ ko mhm. kon ñun soxlawuñ daraay état li ñu soxlaay état mooy li nga xamante ni moom la dundini doomu aadama war a mën a am muy feebar faju ndax yéen yi état moo ko mën a moom muy feebar faju mhm. ak séjour yoo xamante ni day autonome mhm. séjour yoo xam ne tax nañu naan séjour nga mën a am permis de séjour boo xamante ni da nga mën a liggéey tey boo bëggee ibbi fii place ñu permettre la. ce qui veut que loolu mënul nekk en tant que endossé ak doomu réew mi. mënul nekk soo ci defut ak doomu réew mi. Mhm. doo ci génn. wala ah. même bu fekkee ne ibbi nga ko ci condition yooyu noonu buñ la fekkee ba contrôler mën nañoo tëj loolu yow sa mën nga ci am problème. waaw ah, kon ñun amuñu séjour boo xamante ni daana war nañu permettre ñu am loolu noonu ci dëkk bi. bu ci topp amul benn ah sénégalais boobu. bu ma gis fii nii mu liggéey ci lii comme li ngay wax ne naxa fii main d'œuvre bi nangam fabrique moo fi am. liggéey la boo xamante ni maanaam liggéey bu bu bu doy waar la bu métti. te daanaka am na ci yoo xam ne da ngay làqatu pour liggéey fa ndax bu contrôle amee bu ñëwee fekk dañ lay jàpp parce que amoo permis bi pour liggéey fa ah, kon dèjà kon loolu mooy li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi mu lool mais ay gor ñoom jom ñoom ngor ñu bëgg lu baax bëgg teral seeni waajur ak bëgg jàppale seeni njaboot ñoo nekk ci dëkk bi waaw mm-hmm. ah, doon ñoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, yaakaaruñ lenn yaakaaruñ kenn waaw liñ yaakaar mooy yàlla te buñ yaakaaree yàlla ki nga xamante ni moom mooy président bi nga xam moo nekk Sénégal te mën a am accès ci santé bi am accès ci administratif bi état ak état ñu jàppale ñu may ñu loo xamante ni wala mu utal ñu loo xamante ni dinañ mën a tranquille ci dëkk bi bi ci topp dafay damay su souligner loolu au passage euh, ci côté habitat dëkkuwaay yi dëkkuwaay yi mhm. fay amoon benn euh, kii habitat bu am solo mhm. coopérative habitat bu am solo te ñu ngi koy nuyoo au muy Malick tam yoroon ko mhm. euh, ñun Turquie comme li may faral di wax rek yoruñu euro yoruñu dollar te moodu moodu boo xar xolom kër moo ca ne waaw di wax ne président Macky Sall gis nañ ne am na cent mille ah, logements yoo xam ne cent mille ne yore na ko ci àdduna bi mhm. ne daf ko bëgg a jàppale moodu moodu yi mhm. ñuy wax à haute voix am nañ ko am nañ coopérative bi teg nañ ko ci loxo ministre Boun Abdallah Dionne mhm. lépp loo xam ne mooy agrément bi yépp pour xamal ko ne ko ñun ñu ngi ci biir mais comme li ñuy wax rek sénégalais cotisation day xaw a jafe ci moom voilà kon mais am nan loo xamante nii tey taxaw nañ ko ci di ci dox di wax président Macky Sall li nga xamante nii mooy habitat yooyu ñun waa Turquie ñu ngi lay tàllal loxo. Mhm. bu dee dem na ba dañ koy dagg di ko pàcc pàcc di ko joxe ñu ngi la ciy sàkku ñun ñi nga xam ne ñu njëkk ci am. Mhm. parce que yiteewoo nañ ko te nag dëkk bi métti na. Mhm. waaw dëgg yàlla di wax ci côté social rek ndax kenn ku ci nekk yaa xam ni ngay tojee sa bopp ji ndax. ndax sa famille ak sa njaboot moom li leen dundal. kenn du la ci fekk si. mais li nga xamante ni état koy joxe te ñun nag doomi sénégalais lan doomi réew mi lan ñu jaadu na pour ñu ñaan pour li nga xamante dañ koy jox pour sénégalais yi kenn bañ ñu ciy jiitu. Ah, waaw loolu moo doon kàddu yi ci côté social bi la. jaajëfal di nuyu waa Lamp eh. leen bëggee loolu wax dëgg yàlla parce que li ngeen ñu may ni opportunité bu am solo la. Uh-huh. nga xam naa ne kàddu yi ñuy jàll nii dina ci am yaakaar nan. loo xam ne dina saafaru. waaw dinañ leen dégg bu baax a baax mooy lamp mi leeral. waaw jàpp nañ ne eh, naa def tawféex lu uh-huh. bari. Uh-huh. fajoo ko ci barke Seydina Mohamed di nuyu au passage tamit borom kër gi. di nuyu tamit xalif général des Mourides muy Serigne Mountakha Mbacké ak Serigne Cheikh am di xarit mi nga xam mu may xalif Baye Fall yi yàlla def lépp loo xamante ni wax nañ ko fi muy lu jub ñoo xam ne euh, suñu borom la lépp luñ fi wax mu doon loo xamante ni dëng nañu xam ne mate di doomu aadama la salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Cheikh Gueye yor lépp lu jëm si wàllu social si fédération euh, sénégalais euh, turquie yi kon ñu tëj kàddu yi rek ak comme Pape Moussa Gueye mi nga xamante ne moom mooy le secrétaire Euh, ndax euh, yaakaar naa ni réew ma teg nañ fa benn fonds d'appui à l'investissement de Sénégalais de l'extérieur di fees di nuyu bu baax a baax euh, sunu jigéen soxna naata Samb Mbacké mi nga xamante ni mooy administrateur administrateur u fees financement yi am na financement bu ñu destiné si Sénégalais yi nga xam ñoo nekk biti réew ndax am ngeen connaissance si Euh, organisation yi am fofu ak fonds yi am fofu ngir aussi mën ci jot seen wàll ngir mën a taxaw bu baax a baax seen mbokk sénégalais yi ni ngeen ko bëggee. bon. aussi wàllu retour ba xam fédération bi ñu ngi siy wax waaw waaw c'est important aussi. ndax euh, sëñ Cheikh wax na point bu am solo muy wàllu dëkkuwaay. effectivement oui c'est important aussi ci affaire investissement yooyu noonu qui euh, yi nga xam ne moom nga sànq sénégalais yi je pense que 2015. Mhm. Macky Sall defoon na benn fonds d'appui pour les sénégalais de la Turquie.

dañu doon def euh, par trois sénégalais lañ doon boole ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon pour ñu ñu financer leen donc am na ci ñenn ñoo xam ne jot nañoo fay am na ñoo xam ne jot nañoo mbëkk comme ni ko ma Talla financement remboursable remboursable la mm-hmm. donc euh, mbëkk nañ am na ci ñoo xam ne ñu bi nañ Sénégal donc euh, mu nekk loo xam ne xaw naa soxee bi le président ma Sall ñëwee tout à l'heure rek temps yi passé rek ñu ngi ko koy souligner waat di ko waxaat pour mu xool nu mu jàppalewaatee jigéen ñi nga xam ne ñu fi tax wax dëgg yàlla ndax fi boo xoolee dafa nekk dëkk boo xam ne bokkut ak euh, maanaam ni Europe bi du dundee. Mhm. ndax maanaam Turquie ni muy dundee dafa nekk dëkk boo xam ne dafa spécifique par rapport ak euh, ñi nga xam ne ñoo nekk Europe. parce que fii liggéey fi dafa xaw a jafe sax ci góor yàlla waxuma la ak jigéen boo xoolee suñu mbokk jigéen ñi leen di nuyu wax dëgg yàlla ñu a metti lool lool lool lool lool ci boo nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy sàkkuwaat ci le président Macky Sall mi nga xam ne bi fi ñëwee bi euh, yoonam waxoon na dina financé waat jigéen ñi mm. wax dëgg yàlla bu jubóolee góor ñi nag moom dana gën a neex moom waaye <laughs> jigéen ñi moom lañ leen bàyyi waale xel baax wax dëgg yàlla jàmbaar lañ te nangu nañoo liggéey mm. te wax dëgg yàlla ñu ñu ñu jara sant lañ tamit te jara gërëm wax dëgg yàlla mm. ndax Sénégal moom boo boo waxtaanee autorité turque li mu leen njëkk wax mooy maanaam nangu nañoo liggéey mm. nangu nañoo jaamu yàlla te loolu yaakaar naa ku ci nekk yaa ambassadeur sa dëkk mm. te wax dëgg yàlla Sénégal taxaw nañu fi taxawaay boo xam ne wax dëgg yàlla rafet na lool ñëpp rafetlu nañ ko euh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax daal ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di gërëm aussi Euh, Lamfar FM mi nga xam ne moom ni ko sànq Cheikh waxee rek mooy leeral. mooy wax moom mooy leeral képp ko kii rek moom moo la leeral ñu ngi koy sant ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. te di leen ñaanal yàlla tamit li nga xam ne moom nga ci sax borom dafa la ci lu kawe sa njort. amiin amiin dafa la cay tawfeex yu saawan baawan. te wax dëgg yàlla di leen te Sénégal rek que ni ñun <laughs> ñaan la ñuy sàkku. comme ni ko sànq ma Matar waxee. <laughs> ñu ngi sàkku ñaan ci bépp xalifa diine boo xam ne mi ngi fa rek ñi ngi lay sàkku ñaan di la taalal loxo te wax dëgg yàlla di sant bu baax di leen gërëm waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jaajëfal la bu baax a baax Pape Moussa Gueye jaajëfal euh, Pape Moussa Gueye mi secrétaire général fédération sénégal yi nekk Turquie waaye it euh, jaajëfal Cheikh Gueye mi euh, euh, jiite euh, wàllu sociale bi jaajëfal président bi di Pape Moussa Sow si pertinence su débat bi di leen jaajëfal bu baax a baax kàddu yi ngeen fi yëkkati am na solo ndi ko dalee président ak seen ministre du tutelle ak ñu ñi nga xamante ne rek muy organisation yi ngànk lépp lu jëm si wàllu immigration dañuy bàyyi xel bu baax jotaay bi xam naa ni kon dégg nañ ko bu baax a baax mën a nag bàyyi xel kon doomi sénégalais yi nga xamante ne nekk nañ Turquie ndax nag sénégalais fu mu mën di nekk rek ab sénégalais Euh, kon nag euh, état daf dafa war a taxaw nuñ koy waxee saa su si ay mbiram kon di leen euh, jaajëfal bu baax a baax di leen encourager aussi si courage bi nga xamante ne am ngeen ko ak ni ngeen taxawee jaajëfal bu baax équipe technique bi ñu doon réaliser kon émission bi fii ci Turquie ci Istanbul ñëwoon seeti sunu mbokki sénégalais yi di ko kon ci caméra yi xam ngeen ni amoon nañ Jili Mbodj di ko jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Ba moom it di ko jaajëfal bu baax a baax. waaye te di jaajëfal bu baax a baax euh, Basirou Sarr Mbuub mi nga xamante ne moo doon réaliser euh, émission bi euh, xam ngeen ne nag commission audiovisuelle bu kër Serigne Touba gi ñoom la ñu àndal si liggéey bu rëy bi saa su ne ñu ngi siy taxawu di leen jaajëfal bu baax a baax jox leen daje incha allah beneenuk découverte beneenuk émission mu penc émigré yi si yeneen jamono si yeneen i réew. Eh, seeti sunu mbokk sénégalais yi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jaa ngeen jëf xunaa bamba moo fi uutu si yonnen lu yarna fi alquran kuray bayda mo ni gum da yam baba yam bu baax nu sew da mo cheikh bamba ngir moo fi xotti baa xunaa bamba moo fi uutu si yonnan te misaal mi lu wér la fi l quraan ku rey bay